di sunu yaakaar file foofa Mustafa établissement Mbaye et frères mbokk yi bi nu accès ba léegi kenn jaaxleetul ci capitale sénégalaise ah dama ni mbokk lépp loo utiwati si wàllu matériel de construction ñeel sa batiment mu doon accessoire de cloison modulaire ay poignées ay charnières ay vis pour double vitrage mais également ay câble ah dama ni mbokk bu ngeen itiwoo ay câble ay contact ay prise si marque yi nga xamante ni mooy marque yi di Ingelec Legrand ak Schneider bu ngeen itiwoowee ay ngir câble wala ngeen bëgg ay chaîne andit ay accessoires ay anneaux waaye tamit mbokk lépp lu ngeen bëgg si wàllu ventilation dama ni établissement Mbaye et frères mi ngi si Dakar rue Galando Diouf Tolbiac cantine numéro 22 wooteel gaaw si 77 228 16 28 77 228 16 28 76 696 52 36 76 696 52 36 wala nga woote 70 527 71 20 70 527 71 20 fii ci établissement mbokk dama bu ngeen di wër lépp aju si wàllub lumière nee naa la ak si nga am nañu ay lustre ay rétro suspension industrielle vintage plafonnier le sur kiro éclairage le sur salle de jour pour seen salon mais également seen chambre à coucher plafonnier simple atmosphère yoo xamante ni mbokk yi moom la ñëpp di wër ah mbokk yi établissement Mbaye et frères jàppal ni lépp lu ngeen bëggati ci matériel de construction bu garantie romb ko fi wóorul adresse bi mi ngi ci Dakar rue Galandou Diouf tool bi ak cantine numéro 22 hôtel gaaw 77 228 16 28 76 696 52 36 wala 610 527 71 20 kenn jaaxleetu yàggatul bi établissement Mbaye et frères ak see ba léegi ndaxte fii la lépp di yembee